juróom ñaar fukk ak ñett féewaloo ca mbooloo ma ndax yeesu asalaamaaleykum yéen sunu mbokk yi noo déglu ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am nañu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu jàngoon nanu ni borom bi yeesu bareele juróomi mburu ak ñaari jën ngir dundal mbooloo mu ëpp juróomi junniy góor noonu ca ëllëg sa amoon na mbooloo mu rëy muy wër yéesu waaye yéesu mi xam seen xol ne leen yéena ngi may wër ndax mburu mi ngeen lekk ba suur bu leen liggéeyal ñam wu yàqu li gën mooy ñam wuy sax abadan tey joxe dundu gu jeex gi man maay ñam wiy joxe dundu gu jeex gi ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku ma gëm doo mar noonu gisoon nanu ni taalibe yu bare dëppee bañ a ànd ak yéesu ndaxte ñam wi mëna dundal seen yaram moo leen gëna loon ñam wi mëna dundal seeni ruu tey nag danu fas yéene jëm kanam ci linjil bu sell bi ba gis ni yéesu jànkante woon ak ay kilifay diine yawut yi ak ni féewaloo amewoon ca biir yawut ya ndax yeesu wante bala nuy tàmbale war ngeen xam ne boroom diine yi ñuy wax farisiyen yi ak yawut yi yépp dañuy topp aaday yoon yi maam yi tëraloon ci misaal bu ñu jógee penc ma suñu sanguwul set duñu lekk am nañu it yeneen aada yu bare maanaam ni nga wara raxasee ay kaas ay njaq ak ay satala ba ñu laab nanu déglu kon li ñu bind ci jëlu Macce saar fukk ak juróom mbind mi neena ca jamono jooja amoon na bés ay farisiyen ak ay xutbakat jóge yerusalem ñëw ci yeesu ne ko lu tax sey taalibe di mooy aaday yoon yi maam yi tëral ndaxte duñu raxas seeni loxo bala ñuy lekk waaye yeesu tontu leen ne yéen itam lu tax ngeen di mooy li yàlla santaane ngir topp seeni aada yàlla nee na teralal sa ndey ak sa baay te it ku moolu sa ndey wala sa baay des na la rey waaye yéen ngeen ne ku wax sa ndey wala sa baay li ngeen wara jëriñoo ci man jébbal naa ko yàlla kooku amatul warogaro teral baayam noonu tebbi ngeen kàddug yàlla ndax seen aada yéen ñi naaféq esayi waxoon na bu baax ci kàddug yàlla ci seen mbir bi mu naan xeet wi ñu ngi may teral ci gémmiñ waaye seen xol sore na ma seen màggal amul benn njëriñ ci li ñuy jàngale ndénkaaney nit kese nanu taxaw fii tuuti gis nanu ni yeesu weere naa fequ farisiyen yi ak xutbakat yi ci kanamu ñépp ñoom dañuy fexe jub ci kanamu nit ñi waaye yeesu xam na li nekk ci seen biir xool xool bu set moo ëpp solo loxo yu set jàpp taxul sa xol sell su fekkee ne danga am cin lu fees ak tos ndax raxas bitem rekk dina ko taxaset mukk naka noonu itam sarti diine yawut ya daan topp amuñu woon benn njëriñ ngir dindi bàkkaar bi nekk ci seen biir xol looloo taxoon yeesu ne leen yéen ñi naa feq esayi waxoon na bu baax ci kàddug yàlla ci seen mbir bi mu naan xeet bi ñu ngi may teral ci seen gémmiñ waaye seen xol sore na ma seen màggal amul benn njariñ ci li ñuy jàngale ndénkaanay nit keese noonu yéesu woo mbooloo mi ci moom ne leen déglu leen te xam du liy dugg ci gémmiñu nit mooy indil nit sobe waaye li ciy génne mooy indil nit sobe bi taalibeem ya dégge loolu ñu ñëw ci moom ne ko ndax xam nga ne pharisien yi dañoo mer ndax loolu nga wax yéesu tontu leen ne garab gu sama baay bi ci kaw jiwul dees na ko buddi bàyyi leen ay gumba lañu yuy womat ay gumba bu gumba dee womat moroomu gumbaam nag kon dinañu daanu ñoom ñaar ci kàmb piyeer nag jël kàddu gi laaj yeesu firil nu ndéeb bi noonu yéesu ne ko ndax ba tey seen xol dafa tëju yéen itam xamuleen ne lépp lu dugg ci gémmiñ ci biir lay jëm te génn ci béréb bu làqu waaye li génn ci gémmiñ mu ngi jóge ci xol loolu mooy indil nit sobe ndaxte ci xol la xalaat yu bon yi du jóge ak boom njaaloo ndoxaanul yàqute càcc seede lu du dëgg ak saaga yooyu ñooy indil nit sobe waaye lekk ak loxo yu ñu raxasul du tax nit am sobe bi loolu amee yéesu jóge foofa ñëw ci wetu dexu galile mu yéeg ca aw tund toog fa ba mu fa nekke nit ñu bare ñëw ci moom indaale ay lafañ ay làggi ay gumba ay lu ak ngeneen ñu bare ñu teg leen ci tànk yéesu mu faj leen nit ñépp waaru ndaxte gis nañu lu yuy wax làgg yu wér lafañ yuy dox ak gumba yuy gis ñu daldi màggal yàlla buuru israel gannaaw loolu nag amoon na ay farisiyen ak ay sadusen yu ñëw ci yéesu ñu fexe ko fiir laaj ko ne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 waaye du ngeen jot genn firnde gudul firndeg yonent yàlla yunus ndaxte ni yunus nekke woon ñetti guddi ak ñetti bëcëg ci biir rabu géej wu mag wa noonu la doomu nit ki di nekke ñetti guddi ak ñetti bëccëg ci biir suuf si keroog bés penc waa dëkku niniw dinañu jogandoo ak niti jamono ji yey leen ndaxte bileen leen yunus waaree tuub nañu seeni bàkkaar te ku sut yunus a ngi fi noonu la yéesu doon yëgle ne ni yonent yàlla yunus defe woon ñetti fan ca biir rabu géej wu mag wa noonu la yéesu moom ci boppam itam waroona defe ñetti fan ca biir bàmmeel ba te ni yunus génne ca rabu géej wa ci ñetteelu fan ba noonu itam la yéesu naroon a dekkee ca néew ya ca ñetteelu fan ba ngir joxe firnde gu ràññeeku ne mooy almasi bi jóge asamaan léegi nag ci jot gi nu dese nanu jëm kanam ba gis ni boroom diine ya weye woon ci seen ngëmadi ñu ngi jàng ci linjilu yowaana saar juróom ñaar mbind mi nee na gannaaw loolu yéesu doon na wër diiwaanu galile bëggul woon a dem diiwaanu yude ndaxte yawut ya dañu ko doon wuta fekk na bésu xewu yawut ya ñu koy wax màggalu mbaar ya mu ngi doon jub si noonu rakk yeesu yu góor ya ne ko jóge fi te dem diwaanu yude ngir say taalibe gis ñoom itam jaloore yi ngay def ku bëgg a siiw doo nëbb say jëf boo demee bay wone jaloore yu mel ni fexeel ba ñépp gis la rakkam yi dañu doon wax loolu ndaxte ñoom itam gëmuñu ko woon yeesu ne leen sama waxtu jotagul ci yéen nag waxtu yépp a baax àddina du leen bañ waaye bañ na ma man ndaxte ma wax ne seeni jëf baaxul yéen nag dem leen màggal ga demaguma màggal googu ndaxte sama waxtu jotagul bimu leen waxee loolu ba noppi moom mu des galile bi rakkam ya demee ca màggal ga yeesu itam soog a dem te kenn yëgu ko siiwalul demam fekk yawut yaa nga ka doon seet ca màggal ga te ana waa ca biir mbooloo ma ñu ngi ko doon déeyante di wax ci ay mbiram ñi naan nit ku baax la ñee naan déedéet day nax nit ñi rekk waaye kenn ñemewu ko tudd ca kaw ndaxte dañoo ragaloon yawut ya bi ñu demee ba ca diggu màggal ga yéesu dem di jàngale ca kër yàlla ga yawut ya nag jaaxle daldi ne nu waa ji def ba xam lii lépp moom mi jàngul yeesu daldi leen tontu ne li may jàngale jógewul ci man waaye ci ki ma yónni la jóge ku fas yéene wéy ci bëgg-bëggu yàlla dina xam ndax sama njàngale ci yàlla la jóge walla ci sama coobare xanaa du muusa moo leen jox ndigali yàlla yi waaye kenn ci yéen sàmm ko lu tax ngeen bëgg maa rey mbooloo ma ne ko xanaa danga am ay rab ku lay wuta rey yéesu ne leen benn jaloore rekk laa def te yéen ñépp ngeen jaaxle li leen muusa jox ndigalu xarafal gune yi jógewul kat ci muusa mi ngi tàmbalee ci seen maamu cosaan moo tax ba ngeen nangoo xarafal nit ci bésu noflaay bi bu ngeen mënee xarafal nit ci bésu noflaay bi ngir bañ a wàcc yoonu muusa lu tax nag ngeen mere ma ndax li ma wéral nitu lëmm bàyyi leen di àtte ci ningeen di gise te di àtte dëgg noonu ñu koy wuta jàpp waaye kenn mënalu ko woon dara ndaxte waxtoom jotagul woon moona nag ñu bari ca mbooloo ma gëm nañu ko ñu nga naan ndax bés bu almasi bi dikkee ay firndeem dina ëpp yu nit ki farisiyen ya daldi dégg la mbooloo ma doon ndéeyante ci mbirum yeesu sëriñ su mag sa ak farisiyen ya yebal ay alkaati ñu daan wattu kër yàlla ga ngir jàppi ko noonu bés ba mujjoon ca màggal ga moo ca ëppoon solo keroog yéesu taxaw wax ca kaw ne ku mar na ñëw ci man ku gëm na naan ndax te mbind mi nee na ndox mu bare muy dundale dina xellee ci dënnam bi ñu déggee wax jooja am ay nit ca mbooloo ma ñu naan dëgg-dëgg kii mooy yonent bi wara ñëw ñeneen naan mooy almasi bi ña ca des it ne waaye nan la almasi bi mën a jóge galile mbind mi wax na ne almasi bi ci xeetu daawuda lay wàcce te betleyem dëkku daawuda lay jóge noonu féewaloo daldi am ca biir mbooloo ma ndax yeesu am na ca ñoom ñu ko bëggoon a jàpp waaye kenn mënalu ko woon dara bi alkaati ya delloo sëriñ su mag sa ak farisiyen ya laaj leen ne lu tax indiwu leen ko alkaati ya ne leen kenn mësul waxe ni nit kooku noonu farisiyen ya laaj leen mbaa naxuñu leen yéen itam ndax am na kenn ci sëriñ si walla ci farisiyen yi ku ko gëm déedéet waaye mbooloo mi xamuñu yoonu muusa ñu alku lañu nikodem bokkoon na ca farisiyen ya fa nekkoon fekk moo seeti woon yéesu lu jiitu mu ne leen ndax ci sunu yoon mën nañoo daan kenn te dégluwuñu ko mbaa ñu xam lu mu def ñu tontu ko ne mbaa du yow itam danga bokk ci waa galile gëstul kon dinga xam ne benn yonent mësula jóge galile gannaaw loolu ku ci nekk dellu sa kër kon nag mbokk yi ñuy déglu fii lanu wara yam tey ndaxte sunu jot jeex na gis nanu ni sëriñ su mag sa ak xutbakat ya ak farisiyen ya fitnaale yeesu di ko wuta jàpp ngir rey ko waaye mënaluñu ko woon dara ndaxte waxtu wi yeesu wara dee ni sarax si ngir dindi bàkkaaru àddina si jotagul woon lu ëpp ci njiit yawut yi xool bu dërkiis dong lañu amoon gëmuñu yéesu te dogu nañu ci tëkku te dàq képp ku seede ne yeesu mooy almasi bi noonu gis nañu ne féewaloo daldi tàmbale am ca biir mbooloo ma ndax yeesu ñii naan nit ku baax la ñee naan déedéet day nax nit ñi rek ñeneen naan ndax bés bu almasi bi dikkee ay firndeem dina ëpp yu nit ki ña ca des ne mooy almasi bi yow muy déglu tey nag loo wax ci yeesu loo xalaat ci moom ndax xam nga lu tax yéesu juddu ci àddina déglul li yéesu moom ci boppam wax ci mbiram mu ne lii moo tax ma juddu ñëw àddina ngir wax dëgg gi ku bokk ci dëgg gi dina nangu li may wax amin jërëjëf ci déglu bi nu ngi leen di jox dox daje beneen yoon bu neexee yàlla ngir jëm ci kanam ci linjil ba gis ni yéesu faje gumbag judduwaale ga su fekkee ni bëgg nga am téere booy gëstul sa bopp ci mbind mu sell mi wala nga am loo bëgg a laaj ci li nu jàng tey na nga bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 fii ci Ndar yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li Yeesu waxoon bi mu naan bàyyi leen di àtte ci ni ngeen di gise te di àtte dëgg